voilà donc euh, man la biram Diakher fay nekk conseiller en communication du du ministre de l'emploi de la formation professionnelle et de l'artisanat euh, di Dame Diop bi nga xam ne démb bi nga xamante ne yàlla bi wàcce na taw xiiwalam parce que lépp lu yàlla def rek dañ ko koy sant bi nga xamante ne yàlla wàcce na ndox mu bari fii njaareem wàcce ko fépp ci Sénégal mu ne man mënumaa toog ndakaaru samay euh, ñoñ nekk ci jafe-jafe ci loolu la jëlee décision ñëw euh, njaareem ànd ak euh, préfet wu département bi nga xam ne mu ngi koy gërëm di ko sant parce que gis na taxawaayam démb toute la journée et xëy na rôle am la doon def mais euh, def na ko ak yéene ministre bi mu ñëwee itam ànd naa moom wër na njaareem gis na ne waa njaareem ñu ngi ci jafe-jafe te moom lépp lu muy def ci politique lépp lu muy def ci ah, état bu sañoon njaareem duñ nekk ci jafe-jafe mu ne kon naa génne sama asaka yéene ci njalbeen euh, génne ko jàppale ko autorité administrative yi nga xam ni plan Orsec moo war a déclenché wu mais mbiru état gaaweewul noonu parce que dafa am ay procédure mu ne kon naa génne sama asaka yéene jàppale ko monsieur le préfet muy quatre euh, motopompe muy mille litre de carburant muy euh, quatre atomiseurs nekk aussi ay ay ay ay trois camions citernes yoo xam ni tuuti na xëy na ci bët mais yéene bi rëy na rëyaay boo xam ne bu sañoon tey euh, lu lu ñu ne gàññ lay indi indi fii mais yàllaa def xëy na euh, lii la tàmbaleegum te pareegul lépp loo xam ne waa njaareem soxla nañ ko fas yéene nan euh, jàppale leen jaarale ko ci autorité administrative yi mais jaarale ko aussi ci autorité politique yi en tout cas daal loolu la ñu santoon ñu waxal ko ko boole ko jëf ji Euh, euh, xeeb na ko xëy na yàlla dana ko mën a joxaat yeneen i moyens pour mu gën a jàppale euh, monsieur le préfet bi nga xam ne mu ngi koy gërëm di ko sant. ñaata lañ ko mën a xayma. waaw ci wàllu xaalis xëy na mënuñ ko mm, xayma nii parce que facture bi jotaguma ci mais li ci am solo mooy que ne moyen yi ni ma ko waxee da sànq limé ko mooy quatre motopompe quatre atomiseurs. 1000 litres de carburant ku wax 1000 litres junniy litres xam ne euh, takku na lool ak trois camions citernes loolu nag euh, li euh, xale yi di naan tàmbale mbaay la ministre mu ngi wetu autorité administrative yi ministre mu ngi ci wetu population bi te lépp lu mu laaj comme effort dana ko def bu fekkee ne lu mu téye ci loxoom dana ko def lu fekkee bu fekkee ne lu muy wuti ci euh, yeneen euh, département ministériel yi aussi dana ko def li ci am solo daal mooy dana jàppale population euh, Diourbel te demb commencé na ko fépp fu mu dem masawu na leen génnee na ci poosam jox leen pour ñu jënd ay carburant ñi nga xam ne yor nañ moto pompe te loolu xeeb na ko lépp lu mu ci def daal xeeb na ko wax dëgg fa yàlla xanaa d' abord di euh, wax rek ne fan yi quand même mun naa ne Diourbel dafa jàngoontoo nag mbënn mi comme nu mu bëree ci yenn dëkkuwaay yi euh, bi loolu amee aussi ñu àndoon nag euh, yenn service technique yi mel ni pour pompier ak ONAS pour xool également donc situation bi ne ci dëkk bi ci ngoon gi le ministre quand même monsieur Dame Diop ñëw également nekk doomu dëkk bi moom it yëg ko ñëw ñu ànd moom it mu def visite de terrain Euh, pour woon non seulement population yi mais xool également yan jafe-jafe ñoo nekk ci dëkk bi si la jëloon engagement également ne dina accompagner donc comité bi pour ñu mën a commencer des à présent donc soulager quand kër yi nga xam ne moom la ñu nemee ko kon tey jii li mu waxoon démb ci ngoon mun naa ne moom la jëfe tey jii ndax tamit foog naa ne indi na matériel boo xamante ne ay jumtukaay yoo xam ne sapeur pompier suñ ko utiliser dina mën a dimbale euh, kër yu bari parce que déjà ñeenti moto pompe yi mu indi adapté wu na ak yi nga xam moom la ñu war a utiliser ci kër yi muy dimension bu ndaw et su boobaa fu naa dinañ mën a évacuer yu bari beneen bi aussi mooy camion hydrocureur yi nga xam ne aussi indi na ko dina tax ñu doole ko ci benn bi nga xam ne ñu ngi doon jéem a dajale pour commencer soulager suñ ko ci boolee tamit dina tax yenn kër yi nga xamante ne moto pom mënu faa dem wala ndax duñ am fu ñu ko mën a sotti camion yooyu dinañ ko mën a jël dem tuuri ko peut-être si déversoir naturel yi nekk au niveau de Kamba Suuf ñetteel bi aussi mu am solo ndax fépp fu ñu wax taata du ñàkk mu am ay dépôt larve tamit dina baax suñ paree ñu mën koo désinfecter pour respecter également yenn conditions sanitaires yi donc li mu indi nag foo naa ne du ñu def lu du ko rafetlu mais également di di ko gërëm au nom également de toutes les autorités mais également des populations de la ndaxte foog naa ne euh, si jafe-jafe yi suñu bëggee xaar lépp tamit du mote mais il faut que suñu biir ñu xool lan moo nekk suñu jumtuwaay ñu yem koo dajale si lañ ko tàmbalee woon donc di ko di ko def commencé woon ci benn mais tey foog naa lim ñu indi dañuy gën a dooleel dina tax peut-être naa ne ci diir bu gàtt dinañ mën a fexe ba lii nga xam ne moo doon jafe-jafe bi mu nekk suñ ginnaaw donc loolu foog naa ne ñu ngi koy rafetlu di yóbbante nag gërëm ci moom muy délégation bi xam ne ñoo ko teewal ñu ngi yóbbante vraiment gërëm ci turu population commune Diourbel mais également ci turu autorités yi notamment les services techniques ndax li gën a métti mooy bëgg a def dara peut-être jumtukaay yi dafa ne mais moom tey ji mun naa ne dooleel nañu ba yaakaar naa ne les sapeurs pompiers dinañ mën a gën a remplir convenablement donc seen mission sur sur le terrain. Hmm, taw barki bi xam naa ne lim boobu moom pour wax la lim bi exact dina métti mais nag tàmbali nañu recensement yi ak délégué de quartier yi. mais ñu war ko encare quand même avec la police pour mu am encore objectivité mais si 24 cité maanaam ñaar fukki cité ak juróom yi nga xam ne jaw nañ ko war démb suñ ko xoolee def cumul kër yi nga xam ne moom moo impacté mun na jege ñaar téeméer mais nag suñu bëggee am nombre exact bi il faut que ñu bàyyi ba liggéeyu recensement bu pare su boobaa dinañ mën a wax tey jii dans la commune de Diourbel tant de sinistrés moom lañ jot en enregistré mais si xayma am na njort ne dina mën a jege ñaar téeméeri personnes ménage wala kër yoo xam ne impacté wu noonu donc loolu daal lañ ci mënoon a wax pour